fii ci fi nga xamante ni rek moom mooy euh, ci ba tey euh, comme rek ni ngeen daal di euh, gisee lu ni mel ñu wéy rek baal ma rek ma jege ñu wéy rek di duggandi ak ah, ki nga xamante ni moom mooy naa ñu lay ziar. xam naa sonn sonn naa baat bi dee na waaw dégguma mobilisation mobilisation ah, lii mësul am tey moom. ndar jël na coupe bi nag neexul ba neexul waaye ndar jël na coupe bi yi génn nañu teertu nañ ñu bi ñu dogoo ba tey ba heure bii ñu ngi ci caravane bi wax dëgg yàlla ndar gi yépp génn nañ lii nag man affaire yi oh oh yi affaire yi daf may mujjee jaaxal ndax yëf yi dafa ëppi loxo. moo tax sénégalais yi nañu génn jëli carte yi premier tour ñu fal Bassirou Diomaye Faye ñu xam ne réew mi dañoo déterminé wu te dañoo pare pour changement changement boobu nag ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp bu kenn xaj kenn bu kenn amul xaj amul seen nañ ñëw ñu defar réew mi lii tay buñ ko defee defuñu ko ngir ñàkk fuñ jëm defuñu ko ngir waaye bi defuñu ko ngir dara réew mi am na ñoo xam ne da leen jaral ñu xeex ba faatu ci am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey moo tax coono bi ak lépp yëguñu ci dara xam nga ndax lan ngir defar réew mi na ñëpp ñëw ñu àndandoo defar réew mi. ñu bëri ñu bëri de xalaat njiitu réew mi ah, mu démissionné diggante le village est-ce que bu gisee mobilisation bi du ko poussé que mu démissionné ba yàqu. nañu dimbale rek nag sénégalais yi seen xel dalul waaye dañ koy ñaan na bàyyi rek yëf yi jàll ndax ndax ñëpp a sonn te beneen campagne nag aju fi. nañu bàyyi rek ñu voté fal Diomaye Faye nii ci ndigalu président Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko mën na ko dafa dafa dafa gore dina xam ne Diomaye du ko wor te du ko fen te Diomaye wallahi doo ma a dégg ñu ne la wor na Sonko Diomaye góor la nit ku yiw nit ku teg la Diomaye du wor Sonko àdduna jaralu ko ko may loolu li tax ma koy wax mooy da ngay dégg ay defoo jot nguur baa kii day dofloo nit déedéet du ci diggante boobu Diomaye ak Sonko te ki lii leen boole ëpp na lii moo tax yàlla na yàlla rafetal lépp ñu dem ci élection yi ñëw na génn kanam waaw bu fekkonte ne lu ñu yéene Sonko mu dal ko heure bii Sonko mi ngi ci armeel bi ñooñu nañ xam ne luñ gën a wax ci Sonko lu bon keroog lañ ko gën a may seen bopp jàmm kum ci mën a doon booy boo nga noppalu te xam ne ñoom liñ bëgg du am ndaw ñi ak sénégalais yi seen yaakaar du tas te ñun Sonko lañ bëgg ñoom li ñu wax sax dafa ndaw a wax lu ne nañ ko ko ji waaye chaque jour mbir mi day gën a yokk nga jeexal rek keroog dégg nañ ba jur Diomaye Faye mu ne doon na waxtaan ak Amadou Ba ngir mu waxtaan ak papaam ji nga xamante moom lañ fi mës a amee waaw loolu moom dafa nekk mbir yoo xam ne ñoom dégluwuñ leen xam nga ku ñu déglu Sonko te lim ñu wax xam nañ ko te gëm nañ ko du ñu kàcc du ñu war te loolu moo ëpp solo. Cheikh Bara sëñ Mara la woon baal baal ma ñëwaat rek ci euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, sëñ Bara comme ni ngeen ko rek daal di gis rek gis ngeen euh, mu ngi noonu ñu daal di jël ki nga xamante ni moom mooy jël ki nga xamante ni rek moom mooy sëñ Bara sëñ Bara ñu lay ziar ñu lay ziar maa ngi lay ziare bu baax mobilisation bi day na war trop waa li kenn mësu koo gis mësu maa gis ku dajale mbooloo mi ta doo candidat candidat yi sax mënuñu ko donc kon lii am nii le 24 cent le 24 mars du combat du combat waaw parce que yaakaar naa ne suq yi rek bu ñu leen bàyyi woon daan gaay kon nag yaakaar naa Sonko ak gaay yi loolu du combat daal vraiment. lii di bëgg a am nii du combat wax dëgg yàlla. mu ngi tontu. Ah? Amadou Ba ci campagne aussi mu ngi tontu Ousmane Sonko ci li waxoon keroog. lu wax. mu ngi koy traité que ne matul ak ni mel. mu ngi koy de moom amuñu ko moom. voilà expérience sàcc Sonko amu ko. waaye ko amul du tabax li mu tabax tey ba mu toll fi mu toll. dégg nga moom bu amoon expérience mën a boole waa Bennoo Bokk Yaakaar mais boo xam ne waa Bennoo sax mënoo leen a boole yow daal sàcc rek nga yaakaar ne mooy expérience kooku ñëpp du ñu am expérience ci yow mais fekkee xam-xamu réew dama koy wax dama lay rek yow mas ngaa dem ci genn kër ci Sénégal nga gis kër gi am essenceer essenceer kër Amadou am essenceer bu mag ay essenceer. man maa ko gis. ñu bëri ñu bëri ñu ngi xalaat président Macky Sall mu démissionné actuellement est-ce que bi nga yaakaar ne mën na démissionné gën yàq. non non yoonam nekk day toog ñu gagné premier tour le devant après mu jox Diomaye Faye lenge yi lii ma la wax mooy am. Amadou Ba Amadou Ba bàyyi boon lu muy wax mu wax ko parce que moom amul opposé wu. Modou gagné élection yi. dégg nga barke sëñ Touba 15 pour cent du ko am barke sëñ Touba man ah? maa la ko na Ousmane ba si dina bay a génn li ma lay wax mooy yoonu Sénégal moo amnistié Bassirou Diomaye ak kii bu fekkee moom républicain gi mu doon jaay ak na daa gëm état loolu bu ko waxee kon moom mi moom moom kon mi ngi weddi boppam man nag maa ngi koy xool ba xam ne moom état la gëm wala boppam la gëm bu fekkee xoolu boppam la yor mere ay nit bañ leen ah bu ko neexee ne continuer di wax li doon wax mais su fekkente ne li doon wax da ko doon wax ci au nom de dafa gëm état a ah, vraiment nag kon daa war a tëj làmmiñam mais nag yërëm naa ko koo xam ne yow xas Sonko mooy sa liggéey a ah, yaakaar naa amatul lu mu war a liggéeyee nag. mu waxtaan ak papaam bu ko defee Sénégal mën a nekkaat ci jàmm na ce que da nga ne loolu da koo def pour neexal ndax ñu génne ko prison. déedéet déedéet loolu loolu Diomaye dafa yàgg mel noonu man mii maa ngi ci woon di ko dox keneen ak keneen di ko dox Sénégal moom sax fitna bu koo gis mi ngi jéem a xool pour fitna bi dañ xëy na kay ñoom Moustapha Diakhaté ñoom ñoom la fitna bi doon arrangé ñu nekk ci nopp Macky Sall di ko yëy te yàlla leeral na lépp. waaw léegi nag moom bu dee dafa am problème ak état du Sénégal na ko wax tam respecté institution yi te respecté état bi te bañ a taal réew mi dégg nga te muñ. Euh, mu ngi noonu euh, euh, li nga xamante ni rek daal na koy yëkkati moom en tout ki nga xamante ni rek moom mooy Cheikh Bara Ndiaye. ak euh, en tout cas ki nga xamante rek moom mooy euh, Serigne Mara Niass euh, voilà gars yi fii dafa lëndëm torop kay mais ba tey rek ñu wéy di ànd ak yéen nekk au fin fond de fi nga xamante rek moom mooy Guet Ndar comme ni ngeen ko rek daal di gisee actuellement nag def demi ngir rek daal eh, duggaat eh, fi nga xamante ne rek fi lañ eh, génne euh, du ñàkk rek caravane bi léegi mu rek euh, daal di jeex parce que aussi lu ñu mën a jàpp rek moom mooy depuis euh, en tout cas vingt heures jàpp vingt une heures la caravane bi daal di commencé ba tey ji fi ñu toll mu wéy rek di doxal boppale caravane toujours en est-il ñu ngi ba tey fi nga xamante ne rek moom mooy moom mooy en tout ak la coalition Diomaye président bu ñu waxee Guet-Ndar nag xel yëpp ci li nga xamante mooy euh, euh, la campagne électorale yaa ngi dégg ñoo ko déggandoo noonu ba léegi ñoo euh, mooy boobale campagne. del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer.